ayyuha al ixwatu alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di sant suñu boroom tabaraka wa taala ci defal jëm nu defal tawfiq nu mën a daje daje ci benn ci néegam yi di fàttalante ci diine ni mu nu ko digalee moom borom bi tabaraka wa taala ne dee leen fàttali ndax fàttali dana jariñ ko gëm yàlla buntu waxtaan wi ni ngeen ko dégge al mawqifu shar'i lil muslim min ghayri al muslimin maanaam taxawaayu jullit ji nga xam ne moom la ko lislaam digal mu war koo taxawe digganteem ak ñi dul jullit jullit bi digganteem ak ñi dul jullit ban taxawaay la ci war a am te taxawaay booba doon boo xam ne daf koy teg ci diineen ndax niñ ko xamee jullit lu muy def lu nekk daf koo war a teg ci ndigalul bi tabaraka wa taala dëppale ko ak sunna yonente bi alayhi salaatu wassalaam ci ubbit bunt bi dañ ciy njëkk a fàttali yëg gi nga xam ne jullit bi war na koo yëg responsabilité bi mu am fii ci àdduna ndax xeetu ñi nga xam ne ñooy xeetu lislaam xeet la woo xam ne xeetu daawa la xanaa seen mission mooy daawa woote ci ak njub gannaaw buñ ci nekkee doyul waaye dañ cee war a woote ci biir wote boobu ci lañu ñu amee qualité bi ñu am te mooy gën ci xeet yi ci def yépp li ñu leen gëne mooy mission bi ñu yor te mooy woo nit ñi ci ëndut saa bu ñu taxawee suñu woote boobu dañuy daal di ñàkk qualité bi ñu amoon borom bi ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuuna billah walaw aamana ahlul kitaabi lakaana xayran lahum minhumul mu'minuun wa aktaruhumul faasiquun borom bi tabaaraka wa taala ne yéen jullit ñi yéenay ngën di xeet woo xam ne mates na koo génneel nit ñi lan moo leen may xayriya boobu muy ngëneel boobu ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar da ngeen di digle lu baax di tere lu bon wa tu'minuuna billah te fekk na ngeen gëm yàlla dëgg-dëgg ndax nit ki mënut a woote ci loo xam ne moom nekku ca mu ne bu fekkoon te ñi nga xam ne ñooy ahlu kitaab dem nañu de diine ji la kaana xayran lahum moo gën ci ñoom ñuy def ca la ñuy tudde diine mu ne am na ci ñoom nag al muminuun ñoo xam ne ñoom danañu gëm lislaam wuy suko waaye nee na ëpp ci ñoom nag ay kàccoor lañu dañuy def ca seenu njubati borom bi dal wax ne kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaasa min azulumaati ila annuuri bi idni rabbihim ila siraati alazizi alhamid surat ibrahim mu ne lii day téere la boo xam ne dama ko wàcce ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir lan li tuxrija naar dafa am lu ko tax a jóg moom alquran kon ngir nga génne nit ñi ci ay lëndëm yóbbu leen ci ak leer lëndëm yu bari la lëndëmu kéefër lëndëmu bokkaale lëndëmu réer yooyu yëpp nga génne leen ci andi leen ci leeru lislaam ci ndigalul seen borom nag ngay defe lool teg leen ci yoon bi nga xam ne mooy asiraatul mustaqim ñu jële ci Saad ibnu Malikin radiallahu anhu mu jële ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne man raa minkum munkaran fal yugayiruhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dalika adafu liman rawahu muslim yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ku gis ci yéen yéen jullit ñi ku ci gis munkar lu ñaaw lu wuuteeg la waroon a am na ko jéem a na ko jéem a dindi wuutal fa lu baax dindi googee na ko def ak loxoom mooy na ko def ak kattanam bu fekkente ne am na doole da cee doole yi te zahir moo koy def wala doole joo xam ne moral la su ko mënee na ko dindee lu bon la teg baax bu mënul loola na jéem a dindi loolee fa nekk waru ko woon a ne ci aw làmmiñam maanaam wax ne lii day lu ñaaw la lii day moo rafet mu ne bu mënul loola na ko jéem a dindee ak xolam te mooy na ko naqarlu ci xolam mu ne naqarlu boobu ci xol nag mooy néew bi gën a doyee ci ngëm yàlla bu amatul rek li muy tekki mooy kon ngëm nekkatu fa buñ seetloo kon aaya yi ñuy jot a jàng ak xadis yi ñuy jàng da nga ci yëg kon responsabilité jullit waxuñu moom ci boppam bu nekk ci ak njub waaye daf caa war di woote wax yëpp tas woowu daa war di jéem a defar xam ne ñu ngi ko yàq ci kaw suuf mu jëlee ko fa wuutal fa li nga xam ne moo ko war a nekk loole nag amul kenn ku ciy lay ci kanamam képp koo xam ne nekkoo ci njub rek ak daraja boo mën a am jullit bi dafa war a yëg ne am na responsabilité jëlee la ci melokaan bi nekk andi la ci andi xam nga seen jéem a jëlee ci li nga ne xalaatul jullit bi la ci fekk xalaatul bi la ci fekk moo tax ngay gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu doon bind ay leetar buur yi nga xam ne ñoo gënoon a rëy ay ngóor ci jamonoom muy Kisra di nekkoon Paris muy Perse ak Qaysar di nekkoon Rome ak Najaasi di nekkoon Abasa ak yeneen pouvoir yu amul yépp te ñooña boo doon xool ci zahir rek ñu yoroon ak li ñu yilifoon ci nguur ak ci lislaam woon booba ci wàllu doole ju feeñ ak wàllu kattan lu soreel waaye taxul ñu rëy ci bëtu lislaam taxul ñu rëy ci bëtu yonent bi alayhi salaatu wasalaam teewul mu woo leen comme mu doon wooyee yëpp bind ay leetar yabal ay ndaw woo leen Anas ibnu Malik mi ngi def li mu ne anna nabiy allahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kataba ila Kisra wa ila Qaysar wa ila Najati wa ila kulli jabbaarin yad'uuhum ila Allah wa qaal wa laysa binnajazi alladi salla alayhi nabi rawahu muslim Anas ibnu Malik mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam bind na leetar Kisra bu bu rëy la woon puissance yi gën a rëy moom lañu yoroon jamono boobu buuru Faris Kisra lañ ko daan tuddee ku fa mën a falu rek Kisra ngay tudd buuru Rum ku fa mën a falu Xaysar ngay tudd da nga am beneen tur mais fonction bi mooy Xaysar poste royal bi Xaysar ngay tudd naka noonu ci Éthiopie Xabasa ku fa falu Najaasi ngay tudd Najaasi du turu nit ki mais turu place bi la. comme ni ñuy waxee ci dammeel ci Kajoor ku fa falu rek dammeel lañ lay wax bu dee ca Bawol ñu ne teey ca Waalo ñu ne noonu mu amee woon bu ne dafa am ndomb ak tànk ga ko jiite pour woon tudd su fekkente ne kon pour ñu mën a garder xayriya muy ngëneel gi nga xam ne moom la xeet bi am ci yeneen xeet yi dafay laaj ñu taxawee digle lu baax ak tere lu bon ñuy laaj nag lan moo gën a nekk lu baax lu mu war a digle woo nit ñi ci taw si lépp looy digle ci lu baax la ko gën a rëy ci taw si lépp looy tere ci lu bon la gën a rëy mooy génn nit ñi ci bokkaale munkar ba mu mën a doon bokkaale moo gën a nekk munkar maaroof bu mu mën a doon tawxid moo ko gën a nekk maaroof kon nag nee na bi bil ma'ruf da ngeen di digle lu baax lu baax la ci gën a kawe mooy tawxid ndax su tawxid amul kenn du jariñu ci lu baax wa tanhawna anil munkar da ngeen di tere lu bon lu la ca gën a rëy mooy bokkaale ndax nit ki loo ko mën a tere te terewoo ko bokkaale bu tax mu mucc loolu la saxaaba saxaaba bu mag bi déggoon Ruqi ibn Amir xam ngeen bi nga xam ne yebal nañ Sa'd ibn Abi Waqqas mu war ubbi Faaris muy perte te général bi nga xam ne moo jiite armée Faaris bi ñu ngi tudd Rustum bi ñu ñëwee ba. fi ñu war a daje Saad ibn Abi Waqaas moo jiite armée l'islam mais dafa tànn ndaw yónni ko ci moom ndax ñoom bala ñoo xeex yow dañ leen njëkk a woo ci diine boo bañee nag ñu woo nga joxe galak maanaam ngay fay impôt nangu ne l'islam yilif na ci nga dëkk boo nanguwul boobu nag ñu doog a xeex ak saxaaba boobu bi mu ñëwee ci rustum nga xam ne armée bu ëpp téeméeri junniy soldaar la yor ñu ngi ko lalal ay tapis rouge garde yi ñu ngi taxaw wër ko ngir bëgg a complété loo ñi bu ñu ñëwee defar palaat bi ba mu rag lu lool fu nekk nit taxaw fa gàddu ngànnaaya Rustum moomu daal di toog ci kaw pëtëy bu kawe bi muy recevoir rob ay moom bi mu ñëwee mu jaar ak warwaay bi mu war ci kaw seen sàtti boobu yor benn xeej boo xam ne mi ngi koy sëpp ci suuf muy bënn kàtt bi boobu ñëw nga ci moom mu ne ko waaw maa jaa ajukum Rustum ne ko waaw ñun lu ngeen di wut ci nga xam ñoom ni ñu déggee mission bi ñu yor mu ne ko allahu taasana li nuxrija man shaa min ibadati l ibad ila ibadati llah mu ne ko ñun yàlla daf ñu yabal ngir ñu génne ku ko topp jaamam ñi génne ko ci jaamu ab jaam yóbbu ko ci jaamu borom jaam bi wa min dayqi dunya ila saatiha ñu génne nit ñi ci xat-xatu adduna ndax adduna ku fi nekk ca gënoo lu may matériel dafay xat ci yow mu génne leen ci xat-xatu àdduna yóbbu leen ci ak yaatoom te mooy ñu gëm yàlla wa min dawlil adyaan ila adamil islam ñu génne nit ñi ci tooñ gi leen diine yu jubal yi di tooñ li ñuy tuddee diine te duy diine tooñ ga ca diine joo xam ne dafa wàcc yoon ay nit yore ko dañ koy gàll doomu aadama ya loo xam ne dañ koy solo te du leen amal jàng ak tooñ rek lay doon mu ne ko tooñ bi ñu leen di tooñ ci turu diine ñu génne leen ci yóbbu leen ci maandu l'islam fa arsalana bi diinihi ila xalqi mu ne ko yàlla moomu yónni ci diineem bii ñu jot li ko bindee ko ni li nad'uhum ilayhi ngir ñu woo leen fa man qabila dalika qabilna minhu wa raja'na anhu ku nangu diine ji ñu nangul la ñu bi bàyyi soxla wunu sa ngóor soxla wunu sa alal wa man aba xaatalnaahu abadan xata nufdiya ila mawudillah ku bañ nag ñu xeexal yow faw ba ba nuy egg ci li nu yàlla dig ñu laaj ko ne ko waaw wa ma mawudullah ñu ne ko waaw lu leen yàlla dig mu ne ko aljannatu liman maata ala qitaali man aba wa zakaru liman baqi loolu ñu ngi ci albidaaya wa nihaaya ibnu kasir mu ne ko li nu yàlla dig mooy ku faatu ci nun ci xeex gi muy xeexal ñi bañ ñu woote yàlla bi aljana la ko yàlla y fay leneen li munu dig mooy ko fi des di dund ñu am ndam ci seen kaw benn nu am ndam ci seen kaw wala nun nu faatu dem aljana ñaar yooyu mooy digub yàlla bi képp ko bañ wooteeg yàlla bi danañ xeexal yow ba bañ ci jot benn ci ñaar yow loolu kon ci ngay yëg kon ñooñu ni ñu yëge woon mission bi nga xam ne moom la jullit am ci dundu lislaam waaye woo ci keneen diggante jullit nag ak ku jullit ku jullit nag bu ñu ko waxee lu yaatu la am nañ ay tur yu bari am nañ ay pàcc yu bari seenu taxawaay ci digganteeg seen seen digganteeg jullit ñi tam na tolloowut buñ ne kurul jullit rek dëgg la ñoom ñëpp ñoo bokk nekk ci beneen sàppe bi muy kéefër kéefër la tudd ak beneen tur bu mu mën a am baat bi lañ boole moom mooy kéefër al kufru millatun waahida kéefar moom benn diina wala benn doxin li nu lislaam di jàngal ci taxawaay bi ñu war a am seen digganteeg sunu digganteeg ñoom mooy ñu ne ñoom ñooñu ñëpp yemuñu ci seenub jege lislaam ak seenub sal ko yemuñu itam ci ñu ñuy jëflanteeg jullit ñi looloo tax itam nag jullit ñi wóoru ñoo yemale ñëpp ci nu ñuy jëflanteeg ñoom waaye dañ leen ne war a traité kenn par kenn mbooloo par mbooloo dëgg la am na ay yu ñëw di généraliser di wax ne ñoom ñëpp nangam lañu waaye nag buñ demee ba ca pratique ba ca jëf ba da nga détaillé da nga teqale ndax nee na walan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum ñu bari ko waxee yahud wala nasaraan loolu lañ lay wax te kenn baaxu ci te itam bëgguñu loolu bala ñoo am seen bala ñoo am seen ngërëm mooy dañuy topp seen diine waaye teewul borom bi dem ci ne laysu sawaa nee na ñoom ñëpp yemuñu de laysu sawaa mu ne min ahlil kitab ummatun qaimatun yatluuna ayaati llahi aanaa alleyli wa hum yasjuduun yuminuuna billahi wal yawmi al axir wa yaamuruuna bilmaaruf wa yanhawna ani lmunkar wa yusaariquuna fi lxayrat wa ulaika min alsaalixin déggal min ahli lkitab mu ne laysoo sawaa ñoom ñëpp yemuñu am na ci ñoom ñoo xam ne xeet lañ mu jub woo xam ne dañuy jàng alquran te dañuy gëm yàlla maanaam bu ñu leen wooyee ci dañuy wuyu bu ñu déggee alxuraan dañuy wuyu mu ne dañuy digle lu baax du tere lu bon dañuy gaaw dem ci lu baax mu ne ñooñu ci ñu baax ji lañ bokk waaye nag jamono boobu mooy tekk na tuub nañ dugg ci lislaam tekki wu ne dañuy def ci ahlu kitaab ga ba pare yor melokaan yi mu wax rek nee na yu'minuuna billaahi wal dañuy tuub dugg ci lislaam waaye teewul nag ahlu kitaab lañ woon ndax gannaaw ña nga doon jàng seen yu jëkkee doon askanoo jeneen diina jë sifatu ahlu kitaab yi mu ngi ci ñoom mu dellu wax ne laqad danna ashadda annaasi adaawatan lilladina amanu alyahud walladina asraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون borom bi nee na ci gën a noonu jullit ñi gën a tar mu leen noonu kon noonoo bi am na ay degere la tajidanna ashadda an-naasi adaawa lillazina aamanu mooy kat al-yahuud wallazina ashraku nee na ci gën a dal jullit ñi mooy yahuud yi ak ñi bokkaale waaye ci leen xaw a gën a jege nag nee na mooy an-nasaara wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina aamanu allazina qaalu inna nasaara waxu la ñoom ñëpp nag mu ne taalika bi am na minhum am na ci ñoom tëj si seen waruf baan ñoo xam ne dem na ba nag ay eret nekk ay laxte waaye wa annahum laa yastakbiruun ànd ak garab boobu ñu am yëpp bu ñu lay réeru wa ida sami'u ma unsila ila rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana innana amanna faktubna min as-shahidin mu ne ànd ak garab bi ñu am yëpp dem ba nekk xis muy nekk évêque nekk kilifa waru baanan nekk labbe waaye laa yastakbiru ànd ak loolu dañuy wàccee seen daraja bu ñu déggee alquran leer da ngay gis seen ronkoñ di gën wa isa sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq da ngay gis duñ mën a téye seen ronkoñ di gën ndax li ñu xam ne mooy dëgg kon loolu alquran daf ko xamal ne am na ci ñoom ñoo xam ne ñu nga tuddoo diine ja waaye ku leen woo ci islam ñu ñëw kon bul jàpp tur bi rek daal di jàpp ñoom ñëpp rek féetale boor boo ko waxee nga wax du jekk boo leen sax jéem a daawaat jàpp ne doon nañu yëpp ba pare déedéet jëlee nañ ci Muhammad ibn Jubayr mu jëlee ci baayam mu ne anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala fi kuffaara Badar law kaana al-mut'imu ibnu Adi hayyan thumma kallamani fi haa'ulaa'i lafna la taraktuhum lahu rawaahu Buxaari ci Badar bi ñu jàppalee kilifa yi dajale leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne bu fekkoon te ne ku ñuy wax mut'im ibnu Adi mi ngi dund kiifar yu magi Makka yi la bokkoon waaye jamono bi mu génnee yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu génnee dem Taif te bëgg a duggaat Makka yéefari Makka yi ne ko duutoo dugg Makka gannaaw génn nga ba pare moom duutoo dugg moom mii moo ne ci sama protection lay dugg parce que ci kilifay dëkk bi laa bokk man maa ko dugal daal di jël ñaari doomam ñu kàddu seen ngànnaay taxaw ci buntu dëkk bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam leen traversé accord ba mu bindoon itam ne dañuy embargo yonente bi sallallahu alayhi wa ak famille nag képp ku gëm yàlla bokk na ci ñu njëkk a opposé wu wane lii nu bind du yoon ñii suñuy mbokk lañu nañu xotti kii loolee la yonente bi alayhi salatu wasalaam ne bu fekkoonte ne mi ngi dund tey mu ñaan ma njekk ci prisonnier yii mu may ko njekk booba du jullit bi waaye paas waaye nag fekk na sax paatu na moo tax mu ne law kaana al mut'im ibnu abi hayyan natna mu wax man ci ñu ñu ñu ñu xasaw ñi la leen tudd sax ndax ay bokkaale innamal musrikuuna najas a sobe lañu mu ne bu waxoon ak man a ñu tilim ñii la taraktuhum lahu kon ma bàyyee ko kon ñu ñëpp a bale ñu def ngir ngir moom kon koo kooku xoolal yéefar la woon waaye xoolal taxawaay bi mu doon taxaw yooyu yëpp nag l'islam daf koy considéré du tax nag ñu jàpp ne ñu julit du tax ñu jàpp ne li ñu nekk doy rek kenn waratu leen a woo déedéet waaye loolu ci jëflante bi la moo tax xaabis ibnu xajar ci bi muy saraa addit bi ci fatxul baari mu ne ñett ak moom kaana min ashaddi man qaama fi naqdi saxifa allati katabatha quraysh ala bani asim wa man maahum min almuslimin afa asaruhum fi shaam mu ne moom bokkoon na ci ñi gënoon a tar ñi ñu doon contrer accord boobu ñu bindoon pour ne bu kenn jëflante ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak someem ak ñu gëm àndal dafa am loo xam ne nag jullit daf koo war a xam ci jëflanteem digganteem ak keneen ku dul jullit jëflante boobu dafay ñaar bu dee ci wàllu diine kooku moom ñoom ñëpp ay noonu la ñuy doon ci moom bu dee ci wàllu diine moom képp ku ku gëmul yàlla noonu jullit bu des nag ci wàllu jëflante rek ci wàllu adduna muy albirr bi borom bi tabaraka wa taala kooka nag mooy am ay degere am te koo xam ne mën nañoo rafetal ni ñuy jëflanteeg moom ci kaw ni mu jàppee jullit ñi am koo xam ne dañuy taral na muy jëflanteeg moom ci kaw position bi am ci jullit waaye bu dee ci côté diine bi rek ñoom ñëpp ñooy toll ndax dafa am lu ñuy tudde al walaa wal baraa mooy koy jàpp ak koy baax kooku position jullit def see war a leer bu ci leerul ngëm yàllaam bu mag jàpp ki nga sañ a jàpp def ko péete def ko xarit mooy ku gëm yàlla bu gëmul yàlla sañoo lool ak lu mu la jege jege ci mbokk ak lu amal amal intérêt adduna ki nga war a noonu itam mooy ci gëmul yàlla kooku moom ci wàllu diine ci wàllu pas-pas da nga ko war a noonu kon al wala wa bara sart la maanaam principe boobu nga amal ko koy jàpp nga jàpp ko ngir yàlla koy bàyyi nga bàyyi ko ngir yàlla loolu sart la ci sa iman nag wa ta gis borom bi ne fara katiran minhum yatawallawna alladina kafaru jël la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an saxita allahu alayhim wa fil azabi hum xaalidun dégg mu ne walaw kaanu yuminuuna billahi wannabi wa ma unzila ilayhi mattaxasuhum awliya walakinna kathiran minhum fasiqun mu ne da nga gis ñu baree baree bari ci ñu ne ay jullit lañu ñuy jël yéefar yi def leen xarit wax dëgg wax ci suratu al-Maa'ida mu ne tara kathiran minhum da nga gis ñu bari ci ñoom yatawallawna alladina kafaru ñuy xaritoo ak di féeteeg ñi weddi yàlla mu ne la bik sa maa qaddamat lahum anfusukum loolu leen seen bakkan yóbbee ba ñuy bëgg ak yéefar nee na lu bon la lu mu leen di yóbbee an taxita allahu alayhim yàlla da leen di mere te wa fil azabihum xaaliduun te saxara la ñu dëkk mu ne loolu ñu ne gëm nañ yàlla bu doon dëgg ku ne gëm naa yàlla ba nag di xaritoo ko bu yéefar nee na bu doon dëgg walaw kaanoo yuminuun billahi wannabi wa maa unsila ilayhi mattaxakum awliya buñ gëmoon yàlla gëm yonent bi gëm li ñu wàcce ci moom duñ leen def mukk xarit waaye mu ne walakinna kathiran minhum fasiqun ñu baree baree bare ci ñoo ñu guddul julit dañ di xaritoo ci yéefat ay kàccoor la ñu ne dañu génn topp moo tax ibn Taymiya rahimahullah ci aaya boobu mu ne fa dalla dalika ala anna al iman al madkur yanfi itixaasahum awliyaahu wa yudaafu mu ne lii day tegtal ne kon ngëm yàlla bu mag dafa dàqoonteeg di jàpp ñooñu ay xarit nee na dañoo da dañoo da contraire am laa yastamiu al imaanu wa itixaasuhum awliyaa fil qalb nee na ñaar yooyu mënta daje gëm yàlla bu ma tëkk ci xol. ak jëlaat noonu yàlla muy ab yéefar bëgg ko ci sa xol ñaar yooyu mënuñoo rek wa dalla dalika ala anna man ma faala al iman al wa nabi wa ma unsila ilay mu ne kon loolu day tegtal ne ku jël yéefar te mooy ku nekkul ci lislaam rek def ko xarit topp ko gi waroon a am ci ni nga gëme yàlla ak ni nga war a gëme yonente bi alayhi salaatu wasalaam a gëme alquran nee na gëm loolu lépp loolu ñu ngi wax ci téere bi mu tuddee kitaabul iman al kabir xaaju juróom-ñaareel sax paas dix-sept foofu la ko imam ibnu Taymiya wax wax jooju al wara wal bara muy koy jàpp nga ko ngir yàlla koy bàyyi nga bàyyi ko ngir yàlla yonente bi alayhi salaatu dafa wax ne aw saxu ural iman al xubbu fillah wal buxdu fillah rawahu ahmad wal xaakim ngëm yàlla xam ngeen ne ay buum yu bari la mu ne bi ci gën a dëgër nag ci buum yi ngëm yàlla yi mooy koy bëgg nga bëgg ko ngir yàlla koy bañ nga bañ ko ngir yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci loolu daf ci daan jaayante saxaaba yi Jarir nee na ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa yubaya nee na dama dikkal yonente bi alayhi salatu wasalaam di jaayante moom nee ma ne ko uktub yadaka saa ubayaaka ma ne ko yonente bi tawalal sa loxo ma jaayante yow wa tarit alaya te nga sart man nag loola neex ma nag defal lu la neexe fa anta a'lam yow yaa yaa gën a xam yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko ubayyuka ala an ta'buda allah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tunaqi al-muslimin wa tufariq al-mushrikin condition yooyu la jaayante ne ko maa ngi jaayanteeg yow ci an ta'budu allah nga jaamu yàlla wa tuqima as-salah ngay taxawal julli wa tu'ti az-zakah ngay joxe asaka wa tunaqi al-muslimin ngay laa diine jullit ñi waaye wa tufariq al-mushrikin nga taxale ko bokkaale kat conditions yi de ci la garanti bi boobu nata i solo na alwaraaxu muy péete li muy tekki mooy fopp ak cofeel albaraaxu nag li muy tekki moom mooy ak bañeel akuk noonoo akuk sori ñaar yooyu mbiri xol la alwaraaxu wal baraa ci xol lay nekk waaye nag seeni mandarga feeñ ci làmmiñ dana feeñ ci ay cër da waxee noo xam ne dañoo xam ne da bëgg kii wala da koo bañ da nga jëfee noo xam ne it danañ ci xam ne da ngaa bëgg kii wala da koo bañ ñaar yooyu nag muy alwara wal bara mu ci ngay féeteel di ko bëgg ci sa xol ak ci ngay bañ ci sa xol ci ngay féeteel jullit la war a doon ci ngay bañ yëppar la war a doon borom ne innama waliyukum allah wa rasuluhu wallazina amanu seen péete mooy yàlla ak yonentam ak ñi nga xam ne gëm nañ yàlla naka la ab jullit di féete ab jullit maanaam nu mu koy nu mu koy bëggee daf koy bëgg ngir ngëm gi ngëm daf koy dimbali dafay am cafeel ci moom daf koy laajiire daf koy ñaanal daf koy nuyu su feebaree daf koy siyaare ku ca faatu daf lay gugge ku ca am jafe-jafe mu defal la dimbali la di laajte seeni mbir ak yeneen yu dul yooyu yoo xam ne dana dëgëral diggante ku gëm yàlla ak keneen ku gëm yàlla naka lay defee baraa nag ci ku gëmul yàlla daf leen di bañ ci diine yëf yi day ñaar il faut nga tëdd la relation bu dee ci côté diine moom da leen di bañ parce que dafa leen di bañ ci wàllu diine bañ a toroxlu ci seen kanam bañ leen a yéem bu mu leen yéem te la ñu nekk nay wattandiku nuróolu nuróolu nuróolu ak ñoom a doon bu mu leen nuru nurulu nay fexee amal jamono bu nekk wuute ak ñoom ci nekku ko tari addina yooyu ay xaqaa'iq la saabita yoo xam ne du soppiku ay régal la yoo xam ne du soppiku jamono du ko soppi place du ko soppi ci ne an al kuffar a'da'un lil mu'minin bi nafsi al qur'an yéefar noonu la ci ku gëm yàlla loo xam ne alquran dafa wax ya ayyuha alladina amanu la tattaqisu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda ndax lan wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq képp koo xam ne qad kafara bima jaakum min alxaq wa huwa adukum képp ku weddi alquran di leen dikkal di dëgg moom gëmu ko ne alquran jógewul ci yàlla kooku soo bëggatee wax ne sama toppee sama xarita kon day jël nga sax noonu noonu yàlla nga def ko xarit daf ko tere laa te fekk bu leen jël addu wii sama noon man yàlla wa adduwakum di seenum noon awliyaa ak ngeen di ko def xarit tulqoona ilayhim bil mawadda ngeen di leen am ak cofeel ci ñoom xam ngeen ne sababu nusuuli aaya bi moo di yonente bi alayhi salaatu wasalaam di waajal fakku makka te am ci saxaaba yi koo xam ne moom daf faa am ñoo xam ne daal xëy na ak xare koo dox na digganteem ak ñoom mu bañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam bett leen mu bi leen leetar di leen wax ne na ngeen waaj ndax yonente bi waaj jim doon waaj dafa doon nëbb dafa bokk ci tittaku guerre ngay nëbb li ngay de ba waxtu wa moom nag mu bind bëgg a bind lettre ña ca Makka avertise leen ne leen yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ñëw na ngeen xamee xista ba ba yonente bi alayhi wasallam yabal Ali ibn Abi Talib ndaw sam ko joxoon mu lëttuwaale ko ñu de ko ba génn ko ci biir lëtt yi delloo ci lettre biñ ko wooyee dañ ne ko lu la yóbbee lii mu ne yonente bi alayhi wasallam naa fekku ma de waaye damaa am ak njaboot bu def ñooñee ma xam ñu lor leen may wut relation bu xaw a nooyal sama digganteeg ñoom bañ aar ma sama njaboot googa ba ba muy mën a rek laa ci jubloo alquran ak daal di wàcc ne yaa ayyuha alladina amanu di kon alquran taxaw na ko ci iman waa naa dëkkut gëm na yàlla ndax bu ñëwee bu noonu ñëwee ba alquran yaa ayyuha alladina kafaru la koy wax li def yaa ayyuha alladina amanu waa ji kon ba tey mi ngi ci kon li la jullit léeg-léeg mu def erreur kon day gaaw nit ndax bi ñu ñëwee rek Omar boobu daa daal di tëndee yonente bi bàyyi na ma dóor mu loosu naafiq xam naa faqa naafiq la mu ne naafiq ma de alquran wàcc na yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa tattaxitu aduwwi wa aduwakum awliya bu leen wutati xarit ci samam noon ci seenum noonu tulquuna ilayhim bil mawadda lan mooy tax sunum noonu rek wa qad kafaru bima jaakum min al haqq yuxrijuuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum ñoom ñoo génne yonente bi alayhi salaatu wasalaam Makka ñoo leen génne yéen nii lu ngeen leen def an tu'minu billahi rabbikum dong gëm bu ngeen gëm yàlla dong ci lañ leen génne Makka waaw kooku noo koy def xarit loolu la tax yooyu ay aaya la yoo xam ne yu tax ci alquran li ñu doon aayatul muhkamaat la li ñuy firi rek la ñuy firi borom bi dana wax ne laa yattaxisi almu'minuuna alkaafiriina awliyaa min duuni almu'miniin daal di tegu ne wa man yafal dalik déggal fa laysa min allahi fii xëy waaw bu leen jëlati yéen ñi gëm yàlla bu leen jël ab yéefar di ko def xarit di ko def féete bàyyi fi ñi gëm yàlla looy wut ci bi yéefar ba di ko ca topp rek demal wuti ko ci ku gëm yàlla mu ne ay ku ci def loolu wa man yafal dalik koo amatul sa yàlla dara fa laysa min allahi fii xëy illa an tattaqu minhum tuqaa wa yuazzimukum allahu lu dul nga xam ne la ngay def muy nuru ak cafeel sa digganteeg ñoom bëggoo leen ci sa biir xol waaye mbir la yooyu def rek ngir tegoo ko suñu ay loolu boobu lislaam bay na fekkee da ngaa nekk foofu da ngaa néew doole dëkk fan ñoom may na la ngay mudaaranteeg ñoom di moralisenteeg ñoom yoo xam ne kuy xool tey defal da nga leen a bëgg waaye fekk ne bëggoo leen ci sa biir xol illa an tattaqu minhum tuqa la ngay def da nga koy fegoo seenu ay rek bu fekkee da ngaa nekk ci position boo xam ne da ngaa néew moo tax ibnu kasir rahimahullah wax aaya boobu mu ne naha tabaraka wa taala ibadahu almuminin an yuwaaloo al kuffar mu ne yàlla tere na jaamam ñi gëm yàlla ñii def féete ak yéefar wa an yattaqisuhum awliya ñu di leen def ay xarit yusirruuna ilayhim bil mawadda min duni al muminin ñu di leen dencal ak taxeel ci seen biir xol bàyyi ñu gëm yàlla suma tawaada ala dalik mu ne yàlla tëkkoo ci loolu ne wa man yafal dalika fa laysa min allahi fii shay ay ku def loolu day borom bi tabaraka wa taala dañ na ci moom kon dafa am yu sax yoo xam ne complexe yu jullit ñi wala koo xam ne jamono toll dafa ci wàllu relation tax ñu dem ba am kersa ci yenn aay yi sax bëggatuñ koo wax leen lu mel ne inna diina inda allahi l islam lu ñu ko def bëggatuñoo wax aaya boobu daa diine yëpp kay diine la yëpp a baax waa aaya boobu kon nuñ koy def inna diina inda allahi alislam wa man yabtagi gayra alislami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaxirati min alxasirin duñ koy def aaya aaya mottama la ñu bëgg ñoo complexe ko ba ñëmat ba ñëmatu ñoo wax aaya boobu léegi diine fa yàlla mooy lislaam yeneen yi duñu diine duñu diine duñu diine ci wàllu diine moom dañuy code dañ leen di code opposé leen même li ngeen nekk du diine ndax boo xasee reconnaître ne li ñu nekk diine la kon sa mission bi ñu la sartoon ci nga woo leen andi leen ci diine lu muy jar ñett ginnaaw lañ koy la li nga nekk baax na li mu nekk baax kon tey mbir ñu jeex ah xoolal ña doon ay góor lañ doon rëy rëy teewul yonente bi alei salatu wasalaam woo leen ci lettre yi dañ ko lire waaye lan lañ ko doon wax mooy ku ci wuy si ànd ak sa mbooloo da am aw yiw ku yaa sa bakkaar ak bakkaaru mbooloo mi la ko yëpp yaa ko yam bu leen di dindi di leen ne salaamu alaykum salaamu ala man ittaba al huda lay dindi ca lettre jàmm day yàlla nekk ci ko topp ak njub waaye du leen assalaamu alaykum mukk lettre du ko bindi loo salaamu ala man ittaba al huda lay wax jàmm yàlla nekk ci ko topp ak njub nga xam ne salaam bam la yónnee farp nga jot ca nga tuub ci salaam bi mu la yónnee waaye boo tuubul ne salaam bi jotoo ci waaw parce que salaam bi yónnee du ko mu jëkk rek ne la assalaamu aleykum déedéet da ko conditionné salaamun ala man ittaba al huda jàmm day yàlla nekk ci ko topp ak njub léegi borom bi tabaraka taala dana wax ne laa tajidu xawman li tax man la alwala walbara bi fàtt la ci iman laa tajidu la laa tajidu xawman yuminuuna billahi wal yawmi al axir yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasulahu walaw kaanu abaahum aw abnaahum aw ixwaanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin min nee na laa tëji doo fekk mukk mukk mukk nit ñoo xam ne gëm nañ yàlla gëm yow na xeer nga fekkaat leen ñuy bëgg ku noonu yàlla nee na loolu du am mukk fu ñuy am rek la ca def def foog nit ki commencé bëgg ku noonu yàlla iman ba def na mënuñoo dajee ñoom ñaar laa tëji laa alquran nee na ñoom ñaar mënuñoo def iman bi nekk ci ba noppi mbëkkeelu ku noonu yàlla moom it mën cee am place bu kii di dugg kii di génn ñoom ñaar moom duñu daje borom bi ne yaa ayyuha alladina amanu la tattaxidu alkafirina awliyaa min duni almuminin aturiduuna an tajalu lillahi alaykum sultanan mubina yéen ñi gëm yàlla bu leen jël yéefar yi di leen def ay féet ndax da ngeen a bëgg wutal yàlla aw lay ci seen kaw wu mu leen mën a yeyee ba tàbbal leen safara loolu boo ko defee rek wutal nga yàlla aw lay ne bu mu la mën a tàbbale safara daloo xam ne yaa ayyuha alladina amanu la tattaxidu alyahuda wannasara awliya baaduhum awliyaau baadin wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum mu ne yéen ñi gëm yàlla bu leen jël yahud ak nasaraan di leen def ay soppe di leen def ay péete ngeen xari koo kenn ku nekk nekk sa soppe morom mu ne ku ci def woowu day léegi sa ñoom la bokk bu mu akkaroon ci jullit ñi ndax iman ba génn kon loolu mbir la yu sax yoo xam ne du soppi ko borom bi tabaraka wa taala leeral na ko nee na laa yarqubuuna fi muminin illan wala zimmatan nee na ñoom day du ñu sàmm génn kóllëre seen diggante ak ku gën yàlla nee na benn kóllëre bu dox seen diggante ci gëm yàlla ba muy sàmm amul saa bu ñu ko jekkoo rek wan ko mu dellu wax ne maa yawaddu alladina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikin an yunazzala alaykum min xayrin min rabbikum nee na ñi nga xam ne kafaru min ahli alkitab li xam dañoo weddi te bokk ci ahli alkitab ak mushrikoon yi yéene wuñu leen dara lu baax wàcc ci yéen an yunazzala alaykum min xayrin min rabbikum dana wax ne wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min baadi imanikum kuffaaran xasadan min indi anfusihim mu ne wadda ngéejoo la bëgg na mbëggeel bu tar moom la ñuy wax wadda mu gën a koo ahabba wadda nee na ngéej ñi nga xam ne ahlu kitaab lañ lu mu bëgg law yaruddunakum min baadi imanikum kuffaar seen projet bépp ak seen programme bépp mooy du ñu mënoon a jaar ba delloo leen ngeen di yéefar gannaaw bu ngeen jëlee yàlla loolu lañ bëgg ñu ne lu tax xasadan iñaan xasadan min indi anfusihim dañ leen a iñaane taw yi jigéen am suwar suwarul muwaalaani kufaar forme yi nga xam ne nag danañ ci xamee ne nit ki dafa des yéefar yi féete dafa ànd ak ñoom forme yooyu am na ci yoo xam ne dana waral nit ki nekk murtad am na yoo xam ne boo ko defee sa diggante yéefar nit ki day nekk murtad ma ne du génn ci lislaam am na ci yoo xam ne dana ko yóbbee ay bakkaar waaye du ko génnee ci lislaam forme xaritoog yéefar wala topp ko ci façon boo xam ne dana génn nit ki ci diine bokk na ca muzaaharatul wa muawadatuhum alal muslimin mooy dem di dimbali bokkaalekat yeeg yéeko yi ci kaw xeex jullit ñi maanaam ñuy xeex jullit ñi nga am benn façon ndimbal boo leen defal xam information boo leen jox la wala dalal boo leen dalal fenn la place boo leen jox la comme dañ ko doon gisee réew yu jullit yi ñuy xeex meneen réewum jullit ca wet ga jox leen ay baax yi ñuy wàcc foofu kooku mu mu baaxal mu tax dimbali la ñu ngi dimbali yéefar ci kaw jullit loolu day génn nit ki ci diine moom waaw dimbali yéefar ci kaw jullit ak lu ci nit ba kàccoor kàccoor jullit ñoo ko war a lijjanti ci seen biir wa in taifataani min almuminina ixtasalu fa aslihu baynahuma fa in baqat ihdahuma ala al-ukhra fa qaatilu allati tabqi hatta tufi'a ila amrillah fa in faat fa aslihu baynahuma bil adl jullit ñi ñaari jullit ñoo ne suñu jotee bu ñu woowee ñu yëfar leen kay lijjanti ko de nee na yéen jullit ñi defar leen seen diggante bu ngeen bëggee jubale am ko bañ yéen jullit ñëpp ànd leen xeex ka bañ leen di kawam xeex ko waaye yéen a koy defal seen bopp nag ngeen teg leen ci yoon waaye bu kenn woy ab yéefar di ko dimbali naan ko kaay dimbali defal ma li jullit moo tax borom bi ne moom ñetti wallahu minkum fa innahu bil bokk na ci itam li nga xam ne dana tax nit ki euh, bu leen jàppee noonu génn ci lislaam mooy bañ a nangu seenu kéefar adamu takfiiril kuffaar bañ a nangu seenu kéefar da ngay dégg sax ñoo xam ne dañ naan ahlu kitaab bokkuñu ak yéefar yi waaw bu ñuy yéefar bu leen kenn ci day yéefar mais loolu nag ko ànd laqad kafara alladina qaalu inna allaha thalith thalatha laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasihu ibnu maryam inna alladina kafaroo bi ñu gën a dégg ci suratu lam yakun ñun ñëpp ko jàll inna alladina kafaroo min ahlil kitab kafaroo min ahlil kitab am na ci ñoo xam ne kay kafaroo ku ci nekkul amono rek kafaru nga waaw ahlu kitaab moom du la jàllale boo nekkee ahlu kitaab ba pare ñu ngi lay xool ci amono wala kafaru ndax da ngay gëm wala da ngay wet boo ñëwee dugg ci l'islam moo tax mooy ñu borom noonu am na ci ñoom ñoo xam ne dañuy gëm lay soo sawa an min ahlil kitaab ummatun qaa'ima yatluuna ayatillah boo gëmul l'islam nag tabbi ka ca inna allaziina kafaru min ahlil kitaab nee na ku ne yàlla ñett la ab yéefar nga te ñoom lañ loolu lañ wax bisimil abi wal ibni war ruuhil qudus ñett yooyu lañ wax bismil abi wal ibni war ruuxil qudus mu ne itam ku ne masiix doomu yàlla la wala yàlla la ab yéefar nga laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasix ibnu maryam te kon loolu la bëgg gën a ci képp melokaan yi l'islam wax ci ahlu kitab teewul mu ne ci ñoom parce que ñu ngi bëgg a wax ne kon su fekkee ak yéefar lañu li l'islam mayee ci ñoom ne eh, mën nañoo takk ci seen i jigéen mën nañoo nekk lekk seen i ñam. teewul même bu ñu nekkee yéefar islam bàyyi na loolu ci yoon ndax xam-xam bi ñu am ahlu kitab bi ñu doon ñoom ñoom yeneen yéefar yi ci def ci dagare ci wàllu jëflante boobu am man ci wàllu kéefar nag moom ñoo ca euh, kon li nga xam ne mooy faral bi lëj ci mën a boole diggante muwaalaa muy def leen xarit def leen ak topp gi nga xam ne dañ koo tere ak diggante mudaaraa almuwaalaa wal mudaaraa almuwaalaa mayee nañ ko tere nañ ko almuwaalaa dañ koo tere mooy nga bëgg leen def leen toppe almudaaraa nag mooy di moralisenteeg ñoom di looyal ni ngay dundanteeg ñoom bu fekkente ne lépp ñu ñu lay xeex bu fekkente ne lépp ñu ñu lay xeex lislaam may na la lool nga nooyal lu ngeen bokk dund ci kaw suuf ngay jariñ ci ñoom muy jariñ ci yow loolu li tàmbale la nu ñu koy tàqalee nag ñu bari moomu la ñu doo xam ne ah bañ buñ leen war a bañ ci suñuy xol ba noppi nag di jëflanteeg ñoom ci biti ci wàllu adduna lii mbirum diine la mbirum alaxira la foofu moom da nga leen ci bañ sab noonu lañ lii nag mbirum adduna yéen a bokk nekk ci adduna foofu mën nga cee jëflanteeg ñoom ci kaw boo xam ne egg na ci mbëggeel loolu dafa jar a xàmmee bu baax moo tax ku ñuy wax al faraati al faraati ci téere bi ñuy tudde al furuq wax na ca wax bu am solo dafa wax ne i'lam anna allaha ta'ala mana'a min at-tawaddudi li ahli zimma bi qawlihi ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya mu ne suñu borom dafa tere ku leen di bëgg di leen def xarit ci aaya boobu tàmbali saar yi ñaar yëpp a ngi ci même saar yi waaye ca kanam yoo xam ne laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ci même saar bi suratul mumtahana moo tax saar bi ñu dëkk mumtahana imtihan lay externe ba xam da nga réussir boppam de parce que ñaari épreuve la ñu jëfee réussir bañ leen fii ba la ku jëflanteeg ñoom fii moo tax saar wi tudd moom taxaana moom taxaana waaw laa tattaxisoo abdi bu leen leen def ay xarit gën si waat ne yàlla terewu leen nag laa yanhaakum la yàlla terewu leen an allatina lam yuqaatilukum fi diin dégg ki nga xam ne xeexu na ci diine waa li lu jar a xool la parce que xeex ci diine ay forme yu bari la comme xeex ci diine forme yu bari la nit ki mën na lay may jàmm di reeg yow ak jafe-jafe fekk na mi ngi lay xeex ci diine mi ci sa wàllu diine mu ne ki la xeexul ci diine borom bi terewu leen an tabarruhum néew an tuwaaluhum de an tabarruhum al birr moom mooy njekk jëflante njekk ci adduna xam ne lu mu dee attan nga caate lu mu ñàkk attan nga koo ñàkk lu ko dal attan nga mu dal kooku mooy muwaala kooku moo wër am diggante jul tëgee fa am naa nag njekk ñuy wettante ci adduna kooku moom ay aaya bi sababu ndusool ak moo doon Asma bint Abi Bakar bi mu nekkee Madina yaayam moom dafa duggul woon ci lislaam jógee Makka teesti ko waaye bi mu ñëwee daf ne ko boo dugg ci kër gi li fekk tàgguwuma yonente bi alayhi wax ba ci sa mbir ndax yaayam yëppatu mi ngi yor ay sëritam yu bu indaale moom dem laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko sama yaay xoole jullit ne ko sama yaay de dafa jógee màkka ñëw setti la te moom nag ma nga ca nekkoon ba tey léegi naka laay de ndax sañ naa koo dalal yonente bi alayhi salaatu salaam ne ko waaw man nga koo dalal aaya bi ci la wàcc ne laa yanhaakumullahu yàlla terewu leen ñi nga xam ne seetu ñu leen ci diine ngeen defante ak ñoom jolu baax mu dalal ko mu jox ko sëriñ ba nga xam ne moom la ko indil loo xam ne jullit war na ko mën a jëfandikoo kon loolu fokk ñu ne ko bu baax a ba a kon ñaari naft yooyu dañ leen di boole liñ leen di boole mooy mën nañoo defanteeg ñoom ci lu baax ci lépp loo xam ne nag du wane ay mbëggeelu aw du tekkee màggal seen la ñuy jaamu ci kéefari du tekkee waaye su fekkee da leen di wan ci mbëggeel loo xam ne dafa mel ne da ngay reconnaître li ñu nekk loola moom bu boobaa yaa ngi dëgg a dugg ci mu waalaa dafa jege mu waala ak mu daara day frontière bu jege mu ne loolu mënu ko doon ñu faat bokk na ca suñu doon ñëw maanaam nga toog ci jotaay kenn ci ñoom di ñëw ñëpp dañ di jóg di ko yaatal di ko wutal palaas déedéet kooku mu waala mi di ñëw waaw la jox ko respect boo xam ne dañu mel ne kilifa gi l'islam mooy ñëw ñëpp dañ di jóg ngir daraje adduna ju mu am mais foofu la bokk waruñ ko defal lu mel noonu. waruñ koo jógal di ko taxawal waruñ koo jóg di ko yaatalal ay place waruñ koo wooye ay tur yoo xam ne yu koy màggal la ngir yoo xam ne dañ yëkkati daraja yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne ab jullit tamit moo tax sax ñu ne ab jullit jaaduwul sax muy dem ci ñoom di fa nekk ndingaan wala di fa nekk benn employé boo xam ne ñoom dañ koy nax di ko yilif loolu su ma nee yàq loolu suñ nañ bëgguñu ko ci ab jullit mu di ko def parce que lépp lu mel ni may obligé ci ab julit loolu islam daf koy dal su loroo la nga xam ne daf caa loro ah loolu moom boobaa lor la xam ne pour moom mi ngi waaye su amee benn pexe moom bu mu koy def xam ne moom lañ digle nag ci ak mbaax suñu diggante ak ñoom mooy ngay ñeewante ko feebal ci ku ku doyee di ci ñoom man a gisu màggat ci ñoom nga yërëm wala gone wala jigéen wala ko feebar wala jox ñam ku xiis ci ñoom nga jox ko ñam wala ku rafle ci ñoom nga wagg ko nooyalal ay wax sa digganteeg ñoom ci anamuk yërëm leen waaye du anamuk ragal leen wax ji boo koy nooyal na tekk ne am nga pouvoir boo xam ne dina yëg ne moom mii nga nooyal gi ngay wax du faiblesse ci yow yërmande la rek ak modeste waaye du faiblesse waaye fekkee da ngay nooyale say wax loo xam ne day yëg ne moom da nga am faiblesse ci kanamam loolu l'islam daf la koy tere bokk na ci rafetal ga ngay gàddu lor ko fekkee da gàddante ak ñoom fekkee ñi ngi lay lor ngay muñ lor ndax al ilal jaar rafetal jëme ci dëkkandoo kooku dëkkandoo boobu partuñ ci day jullit wala ku dul jullit comme mën a doon da ngaa war a rafetal jëme ci dëkkandoo rafetal jëme ci de nag ñetti yëpp la mooy defal ko lu baax defal ko lu baax tegal ko sa lor gàddu lora defal ko lu baax soo ko mënee lu baax loo mën jox ko ñam soo ko mënee ku feebar soo amee garab soo ko mënee faj nga faj ku jaaxle soo ko manee wallu nga wallu ñaareel ba fay lor bépp lor boo xam ne bu nar a jóge ci yow jëm ci moom la fegal ba lor du mën a toléré nga toléré parce que la dëkkandoo yooyu mooy al ihsan ila te loolu ni ñu ko santaane ci ab jullit noonu lañ ko santaane ci dëkkandoo boo xam ne itam euh, du ab jullit <coughs> waaye nag ànd ak loolu lépp nag boo leen defal yooyu du tee na nga teewlu ci sa xol li nga xam ne ci la ñu bañ nu bañ lislaam ak wedd gi ñuy wedd yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu boobu bu mu accepté ci sa xol benn yoon bul jëflanteeg moom ba mujj fàtte ne kii ku weddi sa yonente bi gëmu lool moom loolu jëflanteeg moom jëflanteeg kaw na ngay teewal loolu ci sa biir xol ndax loolu mooy tax ko du mën a am cofeel comme yonente bi sallallahu alayhi wasallam da nga koo bëgg képp koy teewal ci sa xol da koo bari kooku ak mbëggee a dugg sa xol waaye saa yoo ko fàttee rek mbëggee lañ daal di dugg te su mbëggee lañ duggee mbëggee lañ yonente bi sallallahu alayhi wasallam génn ak kéefar muy daal di moo tax toujours del teewlu ko bokk na ci meññeet yi nga xam ne nag jullit dana ko jële ci su amalee al wal baraabu muy position bu dëgër boobu ci ku muy bëgg bëgg ko ngir yàlla ku muy bañ bañ ko ngir yàlla lan ciy jële dana am li gën a dëgër ci buumi ngëm yàlla yi dana texe itam ci am ngërëmul borom bi tabaraka wa taala dana mucc ci merom yàlla ndax borom bi moo ne tara kathiran minhum yatawallawna alladina kafaru la bisa maa qaddamat lahum anfusuhum an saxita allahu alayhim saxita allahu alayhim kon ku leen def féete suñu borom tabaraka wa taala dafay mere kon su fekkee yow defoo leen xarit mucc nga ci merum yàlla moomu ñaareel ba da nga mucc ci ay fitna da nga mucc ci fitna borom bi dana walladina kafaru baaduhum awliyaau baadin illa tafaluhu takun fitnatun fi l ard wa fasadun kabir nee na na ngeen a xam ne ñi weddi yàlla seeni ñoom ay ay àndandoo lañ waaye yéen seeni noonu lañ su ngeen leen jàppewul ay noonu lañ fitna dana xew ci kaw suuf illa tafaluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir suratul anfal ibnu kasir rahimahullah wax ci tafsir aaya boobu mu ne in tujaanibul mushrikin su ngeen soree ak yéefar yi dànd leen watuwaaloo ak mu'miniin ngeen ak ñi gëm yàlla su ngeen defut loolu day fitna dana am ndax la fitna ba mooy lan mooy ngëm yàlla ak kéefar day lënd nit ñi duñ ko xàmmee suñ demee ba xàmmee ak lu bon xam ne suñu kilifa diine gi lislaam ak kilifa diine yeneen diine xam ne suñ ko ñu ne ñëpp ba baax ñëpp a màgg loolu fitna nit ñi commencé na nekk ci fitna bu booba ndax ka ca nekk moom dañuy daal di sax ci ko doon wattandiku itam dootul sax mën na caa dugg waaw mën na caa te position bu feebal boobu jullit ñu yor xam nga ne jafe woon na lool ngay gis jullit bu génn ci lislaam benn dugg ci jëleen biir waaye faiblesse bii ñu leen defaloon di leen pousse di leen pousse di leen sotti lu ñu wax rek ñu ne du di miin di miin di mu day mujj ba day mujj kon waa bi nga xam ne moom dafa feebal wala ay intérêt yu bari gis na ko foofa day mujj ne kon lépp ayam rek day mujjee kon lépp mooy fitna moo tax toujours ràññeek ne li nekk ci diggante bi dafa war a fés dafa war a leer parce que ñoom loolu moo leen ci ba andi leen ci biir islam ñoom dañ daan xat ci bu nekkee ci biir jullit dañ daan xat da ngay yëg noo xate noo woo ba bokk na ci liy gaawal al islam bëgg a féex bëgg a dugg ci biir jullit ñi féex ñëpp le la ñëpp topp la sa intérêt yëpp ubbi ko waaye su ñu demee ba xat-xat boobu garaan a amatoo ko lekk bunt yi ñu daan tënk ci sa kanam tënootul koo dem mu accueillir la def la soppe def la xarit yow sax ngay jiital ci kaw jullit ñi boo xam ne dana tax nga war a bàyyi li nga ne di ko dana ci musal jullit bi ci fitna boobu su fekkente ne moom taxaw na taxawaay ko bokk na ci li mu ko jural itam amal ko ay xéewal ak ay yiw yu bari ak tagg boo xam ne dana ko am ci àdduna Allah moo tax borom bi tabaraka wa taala di nekk Ibrahim Ibrahim ak baayam bu nga loolu Ibrahim borom bi tabaraka wa taala daf ne jàng leen ci moom laqad kaana lakum uswatun hasanatun fii Ibrahim wala sina ma'ahu waaw lan la ñuy jàng ci ñoom is qaalu li qawmihim qawmihim de inna buraa'u minkum dégg ay mbokkam la de wa mimma ta'buduuna min duunillah dafa war a leer kafarnaa bikum kafarnaa bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده position bu la moom amul amul kafar naa bi ko yéefar laa leen jàpp yéefar ngeen waaw kafar naa bi ko ak noonu mooy dox na suñu diggante wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal bagda noonu ak mbañeel dox na sama diggante yéen abadan na kañ lay jeex ak saa tuut ñu kon du lu ñuy négocier dégg nga fan ko at ndax léeg-léeg nga noonu nit mais seen ko at soriwul day yomb at waaw boo noonu nit rek daf maa defalu daa waaw noonu nit daf maa faale ko bu la faalee nga dindi noonu ko damaa defalu nit bu la defalee nga nga nga dindi noonu ko waaye xoolal ma kon kon hatta tu'minu laa wax li fee gëmu leen billahi wahda waxuma sax ngeen di gëm yàlla di ko boole ak leneen même bu ngeen ne woon gëm naa yàlla ma xool na seen gëm bi bokkaale ànd na ci ba tey noonu naa leen tawxiid la hatta tu'minu billahi waxta ba ba ngeen di gëm yàlla kese ci la noonoo di doog a jeex suñu diggante loolu loolu bind la borom bi daf leen jàng leen ko ci Ibrahima laqad kaana lakum uswatun xasana fii Ibrahima bind boobu duñ ko jël nit ñu bëri yàlla daf ne jël leen ko jël leen ratoo boobu ci Ibrahima yëpp lañ ko ci moom. moo tax gis nga Ibrahima ba mu wooyee baayam woo ko ci diine woo ko ci diine bàyyi bu bañ mu ne ko kon danaa la gàddal ko bàyyi ba xam moo ko ne wax jur nii ba liy jël dagg sori xaaral salaamun aleyka sa astaxfiru laka rabbi borom bi ne faram maxtasalahu comme leen beroo daf leen beroo dagg leen wa maa yaabuduuna min duunillah ba mu defee loolu lu mu jëndee wa habnaa lahu isxaaqa wa yaquub wa kullan jaalnaa nabiyya dafa mel ne loolu la ko yàlla récompense ba mu taggee mbokkam yooyu yàlla may koy doom ndax moom amul woon doom toog na lu yàgg amul doom am nañu am na téeméeri at sax waaye ba mu nangoo dagg mbokk yi sax xam nga boo daggee say mbokk ci amoo doom léegi ku yi ku ko ñàkk nga moo tax borom bi ne falam naatata lahum ba mu leen daroo ànd ak la ñuy jaamu itam nag wa maa ya'buduuna min duunillah ba mu defee loolu wa habnaa lahu ishaqa wa yaqub may naa ko Isxaq ak Yaqub maanaam may naa ko Isxaq Isxaq jur Yaqub Yaqub Ibrahima juru ko sëtam la waaye ñoom ñëpp def naa leen ay yonente wa kullan jaalna nabiya may ko doom borom bi defal ko ko ay yonente waaw kon kay am na wéttal léegi waaw lu wéttal waxam ne wa wahabna lahum min rahmatina wa jaalna lahum lisaana sidqin aliya doom yooyu ba tey ma may leen sama yërmande defal leen làmmiñ wu dëgg wu kawe kon loolu lu Ibrahima am la ci attan ji mu attan ak tàggat di koo ci bokkam ngir nekk di nekk yëpp ba tey tàggale comme ñoom googu bokk na ci li muy li ci jullit bi jëre mooy mucc ci safara ndax borom bi ne wala tarkanu ila alladina zalamu fa tamassakum annaar ah wala tarkanu bu leen jëng ila alladina zalamu jëm ci ñi tooñ su ngeen ko defee day ko tamasakumu naar safara dana leen laaw de te nag wama lakum min dunillahi min awliya summa la tunsaru te kat du ngeen mën a am keneen ku leen mën a dimbali pour lu suñu borom tabaraka wa taala kon taxawaay bu mel noonu jullit ñi buñ ko fàtte li dikk ay aaya ci biir alquran yoo xam ne parce que borom bi tabaraka wa taala xaqiqa bi am la lay wax nun nag mooy jéem a muur ay xaqaa'iq ay réalité dara am ba noppi nga di ko jéem matelas di ko muur ne amuti mën a ak yéefar nga naa ah déedéet suñuy mbokk la suñuy xarit lan suñuy doom yi day nekk loolu amuti yaa ko bëgg a muur ci kaw mais ak noonoo bi ne moom li am la wax moom alquran li am mbir mu ne la ca am dëgg dëgg dëgg loola lay wax alaa ya'lamu man xalaq huwa al-latiiful xabiir waaw ndax ci bind du xam ci bind bindeefal yi ñoom xam na ku gëmul yàlla wéetal ko gëm yonente bi alayhi salaatu concerné képp ku gëm lool ñoom képp koo xam ne mooy gëm yàlla wéetal ko gëm na yonente bi alayhi salatu wasalaam am yonente la alquran jii mu andi ci yàlla la jóge ñoom ak luñ la wan wan wan ak mbëggeelu xol dañ la bañ soo bëggee muuru mbañeel boo xam ne naan mbañeel nekkatu fi ngir ay intérêt yi adduna yu teew ak ngir complexe bu ñu la complexe wala naa leen war ngeen a weesu daal ay diine di leen di leen jëfee ak di leen sàqale ci nit waaw parce que laïcité bi loolu lay jëmbat ci xolu nit ba mu nee rek kenn du sañ a na ne yoon woo xam ne yoonu diine la nga ne ku ma ko bokkal dong laa ci jaar diine déedéet loolu soo ko defee da nga dafa dagg nit ñi ci def da ngay nangoo ànd ak nit ñi nga bokkal ko yépp waaw diine bu mu la taxalee ak ñoom bañ xasee andi diine bu mu la taxalee ak nit rek lañ commencé di te xeebalal nit ñi doogu nga am te jullit li koy boole ak nit du territoire du foofu du aw làkk ñu mu bokkal ku mu koy làkk du ab der bu mu bokkal ku ko nuróo waaye lu koy boolee keneen mooy aqida mooy ngëm yàlla mooy tawhid kooku ku mu ko bokkal koo mën a nekk benn nation la wa anna haadihi ummatukum ummatan waxida umma boobu yëmul yëmul biir Sénégal rek waaye ku tudd nekk ci kaw suuf ci umma boobu la ko waaye kay yeewoo ca biir kër gi te yor aqida boobu bokkul ci biir umma boobu kooku bokkul leen nation donte loolu loolu fokk jullit bàyyi ko xel bokk naa nag ci forme yi ñu mën a jëflanteeg ñoom jëflante bu rafet yi nga xam ne lislaam nangu na ko ci kaw bu fekkee nekk ñu ñu lay xeex loolu rek mooy sart bi ñi nga ciy jëflanteel ci ñoom ku dul jullit waaye ko la ci sa diine deful lenn lu lay xeex ci sa diine xeex sa la parce que su ay jullit nekkee nga ñëw ubbi fa ku ñuy jaayee sàngara yaa ngi leen di xeex ci diine seen diine daf ko te yow yow leer la ne bootum yow dong yaa koy ku nekkul julit kon bu doon yow rek yow rek taxul nga ubbi sa naanukaayu sàngara bi doo ko naan yow rek kon foo foo bëgg ay clients julit ñi nga ko bëgg te julit ñi def leen leer ne seen diine def leen tere sàngara kon yaa ngi leen agréé ci seen diine kooku mi ngi lay xeex ci sa diine comme soo bëggee wax ne dëkkandoo bu baax la kooku dañ ko war a dagg doon carrément kooku fu mu nekk ci koñ julit ñi war nañ koo xatal génne ci seen lépp buñ amul loi bu mën a tëj foofee muy jaayee mënuñ koo génne koñ bay waaye ñoo moom seen bopp ñoo moom seen relation mën nañ ko ca coupé complètement jëm yëpp ne moom dafa xam waaye su fekkente ne ànd ak loolu lépp teewul ña ngi ko def xarit ña ngay jëflanteeg moom ña nga cay ak moom ña ngay rey yëgul benn xat-xat loola kat bu boobaa mu waalaa ba dal day ñëw sopp ko ak mbëjjël gañu tara wantal nga ñëw kon kooku nga xam ne deful benn xor mu xeex leen ci seen diine du ci lu feeñ du ci lu nëb l'islam nangu na ko ca feebar nga dem seeti ko seeti seen ku feebar kooku l'islam maye na ci jëflante bu rafet bi ci ngeen dëkkal te amul benn agression bu leen def boo xam ne buy laal seen diine ci seen njaboot wala yéen ci seen bopp kooku l'islam nangu na ñu seet loolu fi ñu ko teg mooy anak lañ li na nee na dafa amoon benn xulaam yahud benn xale boo xam ne yahud la woon daf daan liggéey ci kër yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na mu feebar benn bis yonente bi alayhi salaatu wasalaam dem seeti ko dem seeti xale bi xale bi yahud la yonente bi seeti ko bi mu ñëwee nee na mu toog ci bopp bi ne ko at nañ puubal yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom ñëpp la bëgg ñu dugg mi ngi toog ci kër baayam ñëpp a mi ngi toog mais dafa ko at nañ puubal xale bi daal di xool baayam ne la daf koy tàggu baayam bàyyam ne ko ati abal xaasim toppal abal xaasim ci lim la wax moom du ne mu ne yonent bi waaye dafa abal xaasim topp ko fa aslama xale bi daal di daal di tuub daal di wax ashhadu an la ilaha illallah yonent bi alayhi salatu wasalam génn naan alhamdulillahi alladi anqadahu min annaar maa ngi sant yàlla mi ko xet ni ci safar maa ngi sant yàlla mi ko xet ni ci safar moo tax ñenn borom xam-xam yi fàtt ci ne seete bi kat na fekk nga mën koo woo ci diine am na ci ñu ci sart loolu waaye nag am na itam ñu ngi ko ci sartu ne daal garaw yonente bi alayhi salatu wasallam fekke woon na ko rek te booba nekkagul ci biir l'islam ndax bam bam ne ko tuuba rek mën na naa bañ a tuub su teewul tekki na ko ba pare kon tekki gi mën naa nekk su fekkente ne euh, nekkul ñuy xeex ci l'islam moo tax ibnu xajar wax ci sara fatul bari ci bi ñuy sara xadis mu ne wa fil xadis jawaabu istixdaamil musrik wa iyaadatihi ida marida mu ne hadis bi danañ ci déggale dagan na nga employé koo xam ne am musrik la koo xam ne bokk alaka la nga jëpp di ko liggéey loo dagan na ak nga seeti ko su feebare kon loolu mën naa nekk ñaareel ba ndokkeel leen ibnu qayyim rahimahullah ne wa amma tahni'atuhum bi zawjatin nee na nga ndokkeel leen suñu takkee jabar aw waladin wala ñu am doom aw qudumi ghaibin wala ku tukki woon ci ñoom ñëw aw aafiyatin wala ku feebaroon ci ñoom wér aw salaamatin min makruh wala ku mucc ci danger bu ko naroon a dal doon bëgg doon accident te mucc ca wala daal luy lu ko naroon a dal mu mucc ca wa naxwi dalik mu ne wal kalaamu fiiha kal kalaam fi taadiyati wal iyaad mu ne lañ koy wax mooy li ñuy wax ci nga seeti leen suñu feebare ak nga jaale leen suñu deele nee na loolu mën naa nekk waaye nag mu ne wala yaxdar na wattandiku nag alwuqua fii ma yaqaw fihi duhal mu ne soo demee bay def loolu nag na nga wattandikoo tabbi ci li nga xam ne ñu wéer ñi dañ ciy tabbi min al alfaat allati tadullu ala ridaahu bi diinihi mu ne ngay wax baat yoo xam ne day tegtal ne da ngaa bàkkoor ci diineem jim ne maanaam soo demee ba di ko ndokkeel di ko félicité ci doom jim am wala jabar jim teg na nga wattandikoo jëmmandikoo terewul yoo xam ne da ciy déggee ne moom da ngay reconnaître li mu mu joxe ci ay misaal lu mel nga ne ko matta ak allahu bi diini bi neex na la yàlla bànneexal ci sa diini bi wala nga ne ko aazaka allah wala nga ne ko akramaka allah baat yooyu bu ko wax aazaka allah yàlla na la yàlla teral xeet bu ko wax akramaka allah wala yàlla na yàlla defal taraaga baat yooyu bu ko jëfandikoo léeg-léeg lu dul nga ne ko akramaka allah bil islam yàlla na yàlla teral ci l'islam fi nga dugg ci l'islam yi rek boo fekkee ñebe gaaw wax la dina la bu ko wax waaw akramaka allah bil islam wa azzaka bi yàlla la yàlla taral ci lislaam yëkkati la ci nee na na nga wattandiku daal kon ndokkeel gi mën naa am seet gi mën naa am waaye ma nga dépendre ci baat bi nga jëfandikoo ci ñu ko fas nag ci fekkente ne jabar la takk wala doom la am wala daa tukki woon ñibbi ci wala dafa mucc ci danse bu ko a def muy ne ko am tahni abi sha'ir al kufri al muxtasa bihim fa xaraam bil ittifaq mu ne am naa nga di leen ndokkeel nag ci yi na xam ne seen mbirum diine la yi nga xam ne dafa jagoo seen mbirum moo leen ko defoo mu ne loolu moom ñëpp ba d'accord ci ne dafa am misla an yuhanniahum bi ayaadihim nee na nga mel di leen ndokkeel ci seen i feet wa sawmihim ak seen koor ñu woor nga di leen ndokkeel ci koor gi yàlla na yàlla nangu koor gi mu ci bëgg nga di leen ndokkeel nga naan ko aydul mubaarak aydul mubaarak ayib ayib gi yàlla na yàlla barkeel la ayib gi maanaam ñuy feetu ñoom nga dikk ne la aydul mubaarak bonne fête waxoo loolu bu leen wax bonne fête de loolu moom te ñoo leen cee ndokkee ndax boobaa kon yaa ngi accepté feet boobu nga xam ne ñoom diine tax ñu dafa def kon dañ leen reconnaître nga diine jot loolu moom te ñoo mu ne loolu dafa mel na nga di leen ndokkeel ci sujjóot di ñuy wala yor gi ñu ko yor nga di leen ci ndokke nee na loolu tax moo gën a téye par bakkaar ci soo leen doon ndokkeel ci naan gu ñuy naan sàngal wala nga di leen ndokkeel ci mooy gu ñuy mooy ak jigéen nee na yooyu yëpp ñoo bokk benn daraja donte nag bi gën a tar nag mooy nga di leen ndokkeel wala ngay accepté seen croix boobu parce que croix bi ko at parce que mooy ne Isa dañ ko pendre moom day wane nii te alquran ne wa maa qataluuhu wa maa salabuuhu wa maa salabuuhu walakin subbiha lahu subbiha lahu moo tax même ku waxtaan ci ñëw toog ci kanam jàkkaarloo ko jullit sax ñu ngi lay toll ci sa diine ñu ngi lay agressé moo tax xeexu leen ci seen diine jooju lu teew la wala mu yuqaatilukum fi diin même ki takk croix ñu waroon na buy ñëw dëkk du takk croix waaw waaye fekkente ne booy dajeeg jullit ñi dañ takk croix di leen wan ne maa xëy man lii la gën kooku mi ngi leen di mi ngi mi ngi leen di mi ngi leen di agressé mi ngi leen di défier da leen di défier ci ne li ngeen di woote man woote wu ma li seen alxuraan di wax contraire bi man laa kooku kenn wër am ak moom moom it ah, jëflante bu rafet boobu ñu wax. moo tax mu ne yooyu nga xam ne nee na ñi nga xam ne la xadra li diine indahu ñi nga xam ne diine amul benn dayoo ci ñoom li na ñoo xam ne seen diine moom jëralu leen dara seen diine lu leen benn réaction boo am dañ ko def. loo xam ne seen diine tax ñu def ko am danañ mer ngir seen ko laal seen dara danañ mer ngir ko laal seen alal danañ mer ngir ko tudd seen njaboot danañ mer ngir ko menacé fa ñuy liggéey waaye ko laal ci seen diine dara dara dara dañuy seetlu góor yi duñ cee gaaw waaw kooku li muy tekki mu leen noonu adda akul iman ngëm yàlla ga gën a feebar moo nekk ci biir xol ba wala sax ngëm nekkatu ko fa parce que ngëm énergie la boo xam ne dafa war a fees ci jullit boobu bu ñu ko laalee ñu muy réactivé du ko réactivé ci boo laaloon yeneen mbir yi ci def boo laaloon njabootam wala nga laal alalam wala nga laal darajaam yooyu yëpp mën na koo mun waaye soo laaloo diineem nag kooku moom duutu am tagoy loolu ci ngay xam ngëm yàlla ji fi mu toll ci nit ki waaye su feebale rek day mujj lu ñu laal laal diine ji moom day mel ne dara bokk na ca itam weccantey ñoom nuyoo xam ngeen ne dikk na ci hadis moo xam ne Abu Hurayra moo ko nekk bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne laa tabda'u al yahuda nasaara bis salaam mu ne leen bu leen leen njëkk a nuyu waaw bu leen leen njëkk a nuyu mu dëkk ci hadith boo xam ne Buxaari wa Muslim jëlee nañ ko jëlee ko ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam nee na ida sallama alaykum al yahud fa innama yaqul ahaduhum assalam alayk faqul wa alayk mu ne bu leen yahud yi nuyoo mu ne am na ci ñoom ñoo xam ne waxuñu assalaamu alaykum mais assaamu alaykum la ñu wax taam nag mooy dee waaw dee yàlla na nekk ci yéen parce que yow nag dañoo fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog ak Aïsa mu ne assalamu aleykum yonente bi ne ko wa aleykum Aïsa mer naan ko laanatullahi aleyka lu nekk mu yegg ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko defal naan mu ne ko xanaa déggoo li mu mu ne ko waaw li wax nag li mu wax li ma ko wax nag daf ne assalamu aleyka ma ne ko wa aleyk delloo naa ko te nag yàlla dana ma nangoo sama ñaan ci moom ci moom ak ñaanam yàlla du ko nangu maa ko gën a dansé yonent bi ne ko maa ko gën a garaawle bu fekkee li ma wax dama def ak yow te man sama ak yow yooyu yàlla da koy nangu te moom boppam yàlla du ko nangu kon nag day boo daalal sa xel rek li ma wax du ma wàcc sax yàlla dana nangu tamit ñaan ci moom te moom ak ñaan jim ñaan yàlla jim ma ñaan yàlla yàlla du ko nangu ndax wallahu yaasimuka min annaas man yàlla protéger na ci nit ñi ko pare kenn mënu maa la ko wallahu yaasimuka min annaas moo tax mu ne am na ci ñoom ñoo xam ne duñ leen nuyu ab faam la ko wóor ne lu mu wax rek ne ko wa alayka rek bu ne wa alayka salaam yooyu kuñ la nuyu comme wóoru la lu mu la nuyoo neel wa aleyk waaye dina ñu ne su la wóoree na nag assalaamu aleykum da la wax ju leer moom ñu ne kooku daal mosoo si li ngay tegtale Ibnu Qayyim loolu la wax nee na nga delloo ko nuyoo bi ndax day daal di bëgg a fàbbi ca wa isaa quyitum bi tahiyatin bi ndax léegi nag mu ngi ne la dëgg dëgg te foofu rek daf ne hayyoo bi ahsana minhaa ko ndax ku gëm yàlla ku gannaaw mu ngi ne la nuyu bu rafet bu wér ne loolu la wax delloo ko ko ñu ne comme loolu la lu mu wax ne kooku wa aleyka rek bu la leeru moom ngay dugg ci pàkk ndax wax na salaam wala wax ko ko wax nag bu la leeree nañ la loolu wax nag delloo euh, ci beneen xadis boo xam ne itam Usaamatu bnu Zayd radiyallahu anhu maa moo ko nekk li mu ne marra anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam marra bi majlisin fihi Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul yonente bi alayhi salatu mas naa wax moom jotaay boo xam ne Abdullah ga Ubay mi nga xam ne moo doon njiitul naa fekkee ma nga waaye boobu duggagul ci islam sax dañ nekkum naa fekk boobu yéefal la ma nga toog ca jotaay toog fa ak ñeneen ay benn benn jullit nekk fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam romb leen daal leen di nuyu daal di wàcc li mu waroon taxaw jàng alxuraan ci seen kanam loolu ñaari hadith yooyu xam nga foofu dañoo wax ne yonent bi salaatu wasalaam dafa ñëw da leen a nuyu kon moo leen njëkk a nuyu te beneen ak day hadith dañ wax ne bu leen leen njëkk a nuyu ñu nag bu boole ñaari hadith yi mooy su fekkente ne dara xewul bu leen njëkk am naa su fekkee da ngaa am soxla ci ñoom nag da nga am ci ñoom sabab boo xam ne kaa dem ci ñoom foo ko aayul nga njëkk leen parce que fii yonente bi sa bëgg na bëgg a daawa xam kii nga xam yaa ko teg ci bëgg a wax moom ah doo ñëw rek nga tëmb rek a dafay bëgg a nuyu ko xalaat am maa nag dara taw lu xam ne nag koy wuta soppal yooyu di ko di ko dab di ko nuyoo bi dane loolu lañ tere waaw waaye fekkee yaa am soxla ci moom la kooku moom permettre nañ la nga nuyu ko nga jëkkee ko ne mais bu dul loolu ko jëkk nuyu même bu dee dajeeti barab bul njëkk a nuyu bu la ñëwee rek dafay bu la leeral wax ne asalaamaaleykum nga ne ko waaleykum salaam bu dee loo xam ne leeru la nga ne ko waaleykum xortu bi wax ne am na ci ak salafa saalix yoo xam ne daanañu nuyu ahlul kitab mooy Abdullah ibn Mas'ud def na ko nee na mas naa ànd ak benn kilifa ak labbe nuyu ko dajeeg moom ci yoon bi nuyu ko fekk mi ngi ànd ak ñu Alqama waaw xam nga beneen saxaaba mu ne ko yaa aba abdurahman alaysa yukrahu an yubda'u wa salaat waaw ndax suba ñu nga di leen njëkk a nuyu mu ne ko naam naam walakin xaqu soxba mu ne ko ah, wax dëgg suñ nañ ko de waaye nag aqi àndandoo ànd gi ma ànd ak moom ci tukki nga xam dañoo bokk ay intérêt ànd bokk ay waruwaay yooyu aq jooju kon bu fekkee dafa am aq ju la motivé aq dëkkandoo wala aq soxla goo ko soxlaal kooku o mën na laa waye falal ci góor nga xam ne moom lañ ci boon nga nuyu leen beneen ba mooy teewe seenu denc seenu bopp wax seenum néew loolu su fekkente nag kasa faatu dafa doon sa way ku ca am baal wala nga am ca ndey mbokk mu la jege kooku mën ngaa dem ànd ak ñoom ànd ca waaye nag boo demee da ngay leen di dàmb fële bàyyee ko ñoom ñu rab ko waaye comme dafa nekk way nga taxawal ba gën a continuer moom mu leer ne tuur nañ parce que nekkuñ ko yaa ko war a parce que Abu Talib bi mu faatoo bàyyi Sayyidina Ali Ali ibn Abi Talib yonente bi alayhi salaam dafa wax ne demal suuf même ab parce que keneen ku waxtul lëkk ba mu ne ko demal suuf kon way jur la te bu rafetlu woon ngeen ànd ànd ba rafet ci adduna bokk na rafetalam ànd ci adduna nga suturaal ko bu fi jógee kon kooku bu doonee sa way jur nga dox ko loolu mu bokkal diine itam may nañ la soo te amee looy sikki sàkk ndax danañ ko suul wala xamoo nu muy demee daal nga ànd ca ba xool ba mu leer la suuf nañ ko nga dem sa yoon. moo tax ku ñuy wax Abdullah ibn Kaab ibn Malik euh, mu ne jaa Xays ibn Sammaas ku ñuy wax Xays ibn Sammaas dafa ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko inna ummi tuwfiyat man de sama yaay dafa faatu wa hiya nasraaniya te moom kat diine nasraan ci la nekk te man day damaa bëggoon a teewe rabba maanaam sama xel gën a dal dal yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko irkab daabataka wa sir amaamaha fa ida rakibta wa kunta amaamaha fa lasta maaha mu ne ko waral xataaba da nga ne ca kanam nga jiitu leen mu ne ko soo nekkee ca kanam àndoog ñoom waaw nga leen di jiitu kon àndoog ñoom ànd ak ñoom gi la ñuy bañ nga ànd ci cortège bi bul ànd ci cortège bi bul ànd ci cortège bi demal nga jiitu ji yow ca kanam dem foog foog fële foog di xaw di xool fam ñuy defee seen yéen ñuy def fukkoo seen ñuy def yëpp seen laaj bi ca seen diine bul ca jege bul ca laal te loolu sax ñu ne ko may nag mooy su fekkente ne mbokk mu la jege la mais su fekkee du mbokk mu la jege la mais da way kooku moom du fa jaar du kooku moom du fa jaar ci lépp ak seen bi am maa dem ci kër ga jaale leen nag comme dañ ko waxee su fekkee ñoo dëkkal la ñoo xam ne xeexu lañ seen diine ma nga aju ca wax rek soo leen di jaale bul wax lu jëm ci ñaanal jéggal ci faatu bul wax lu ci jëm comme ni ko doon déggee ci ci jamono yi passé ñaanal jéggal yàlla ko yàlla xare ajjana dégg nañ ko fii ay julli di ko wax ñu ne sax ay imam xam loolu boobu boobu faiblesse dara dara dara jël ko loolu doy doy na waar loolu moo puus ci muy puus parce que complexe bi ñu amoon boo gisee ñu andi la ñuy tuddee dialogue islamo-chrétien boobu ñuy wax loolu baaraat la bu ñu bëggee baaraat daawa bi leen julli ñu doon def parce que gis nañ loolu ay teg la yoo xam ne pap pap di jóge moom moo bindal lu ne noonu wax gis nañ l'islam ni muy demee pour ñu ko léegi jaamaa loolu ñoom pas à pas seeti ko nañ wax ne dañuy jàmmoog ñoom waaw parce que yoroon ngànnaay yi di dóor di dóor rek nga yëkkati say loxo ne ko léegi ajjë yëkkati say loxo nangu naa ne gagné nga day daal dugalaat ngànnaay bi ci porte bi boo tuur waaw ko defee mu seet nag moom nu mu lay jàppee dafa ne loolu lañ xaw waaye loolu jullit ñi ñoo ko warul woon a nangu jullit ñi ñoo ko warul woon a nangu parce que ki ngay ki ngay jalogenteel day am principe bu ngeen dépassé te ñoom jullit ñi principe bi ñu dox nangu ne ñoom diine ji ñuy woote diine la joo xam ne diine ju wàccoon ci ab yonent la te yonent bañ koy akkile jullit ñi moom gën nañ ko buñ ko weddi woon moom ñu weddi seen yonent ñooya ku weddi woon Isa alayhi salaam da ngay génn ci weddi woon ne du yonent da ngay génn ci lislaam ku weddi ne Muusaa du yonent da ngay génn ci lislaam loolu nag tekkiwul ne da ngaa ne diine gi ñu nekk mooy diine ja Isa andi woon déedéet waaye comme moom lañ ko askan wi Isa da ngay nangu ne moom di ab yonent amma li ñu nekk nag moom doo nangu ne mooy diine Isa jooje du jooje du jooje parce moom dem na moom xamatuñ ko gisatuñ ko yahood yooyu itam da ngay gëm ne Muusa ab yonent waaye doo nangu ne ñu koy tuddoo diine gi ñu ne mooy la Muusa doon wax ndax borom bi dañ yekk tubóolal bi ay diihim summa yaquluuna haada min indillah ñoo bindal seen bopp téere bopp ci seen livre ni mu bare injiilu Matta injiilu Luuqa téere bu nekk ngay dégg ancien testament nouveau testament kon yu bari la yoo xam ne ñoo ko bindal seen bopp ba nga xam ne ci yàlla na jóge loola moom bu ñu nangoo ne ci yàlla la jóge am naa kañuy askan rek danañ nangu ne moom ab yonent am naa comme ñoom nag nanguwuñ ne yonent bi alayhi salatu wasalam ab yonent loolu ku nanguwul moom loolu looy taxaw di wax ak loolu wurtu sax nangu ku koy dis ku koy discuté maanaam koo xam dafa reconnaître ne yonent bi alayhi salatu wasalam dëf yonent alquran bi julliwul ci yàlla nga ne da ngay toogal moom ci saaba ñoo xam boo tax fu mu amee jullit ñi lañu toujours ñooy def ay tanaasulaat ñooy bàyyi seen i principe ndànk-ndànk jullit ñi ñoo ci perte rek loolu fu mu amee ñooy tuddoo ay jullit ñoo ci perte moo tax ci mujj maa ngi laa biire sama bopp bi laa biire sama bopp jullit ne dañuy jafatu ci suñu diine bu ñu wanee defet ne dañoo am defet parce que jullit ñi defet bi ñu am ci wàllu wàllu matériel ak wàllu ngoo nga xam ne beneen la ñu leen amatuñu kenn ngoo amatuñu fenn pouvoir ci wàllu technologie science gagné nañu leen dañ leen cee jiitu ci wàllu médecine domaine yëpp dañ leen cee dañ leen cee domaine defar boobu nag moo bëgg a jàll ci ba ci par diine ci far nag far ni parce que ab defar far waaw yéen ñun teree boobu doo mën a defee ci nekkul am victoire buñ suñ diine mais ci def yëpp fart nan buñ ci boolee fekk suñ diine nag kon jeexal na moo tax suñu diine foofu la defoon suñu personnalité bi ñu doon rajo mooy jafandiku gi ñu jafandiku ci seen diine walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil muminin te perte gañ perte yooyu waruñoo complexe loo ba ñu jàpp ne kon ñun nit ñu doyee ni lañu moo tax borom bi ne wala tahinu wala taxtanu wa antumul aalawna waaye ci fàttu in kuntum muminin wala tahinu bu leen yëpp doyee wala taxtanu bu leen yëpp aw naqar yéenay farataw bu fekkente ne gëm ngeen yàlla jëm yàlla ga nag da caa bokk nga am position bu leer ci jàpp ne ñii li ñu nekk du diine te du leen bëgg ci sa xol da nga amal ñoom relation xaw bu ko laajee waaye du leen bëgg mukk la seen biir xol da ngay def di jullit ñoo xam ne dañuy dem bay tuddanteeg ñoom itam am na ay jullit ñu tudd ñeneen ñu tudd ay jullit ay doom loolu musiba la kon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam doyadal yii ñu ne doyadal yu ko raw lañ leen doon wax. melal nañu leen ci ak réer xoolal noo xaaral mala ulasina kafaru min xawmihi inna la naraaka fii dalaalin mubin loolu lañ ko wax noo yow dañoo gis da ngay réer sa xol moo ko complété mu ne yaa xaw mi laysa bii dalaala walakinni rasulun min rabbil alamin gis nga principe daaw ak rek nañ ko biite kenn mënu ko tax bañ dañoo bëgg a topp mbir mi ak xuloo waaye xuloo waaw da ngay réer mu ne ko noonu lii ne la gën a réer bu ko waxoon rek wàcc na daawa bi léegi waaye dafa dàq réer gi ci boppam ba pare ne réeru ma de waaye nag damay woote ci yàlla laysa bi dalaala walakinni rasulun min rabbil alamin góor mu ne ko inna labiraati fii safaha wa inna la nasunnuka min alkaasibin qaala yaa qawmi laysa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansaxu lakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun dëgg sa sama jënd am dama leen di woo ci yàlla di leen leer te xam naa lu ngeen xamul kooku kooku wóorul defet wa a'lamu min allahi ma la ta'lam continué ñëw it bu ñu la tuumaalee da ngeen a doyen bi ay intégriste ngeen ay terroriste ngeen neen du duma terroriste luñ de tuumaal rek moom lañ ko dàq ndax lañ daan neen du ragal dindi tuuma la neen du ragal dindi tuuma la même yonente bi alayhi salatu wasalam biñ ne ko dox nga yàlla moo ko mën wa maa saahibukum bi majnuun yéen waa ji la de wa maa saahibukum bi majnuun gis nga kon neen du ragal dindi tuuma la waaye duñ de tuuma duñ la tàmm nga bàyyi sax naan ñun ñu xam ne ne mbiru mbiru am na kuy benn koo xam ne moom mi nga xool rek bu lu ñu wax mu ne ah moom kat nee nañ koo jox la te ñëwu ko kon jox la waaw <laughs> loolu boo xam ne laab dof nga neel du bopp dof ndax am na ñuy jënd ba xam ne day dagoo dooru dafa bëgg wala nga ci lu ñu ne moom dañu ne dina loolu de yaa yaa xam ne laysa bii dalaal laysa bii safaa wa maa saahibukum bi majnuun seen waa ji dafa de kon loolu téew leen woon a continuer seen bu wax ba yàlla may leen ndax kon nag bu ñu nangu suñu question yi nga xam ne question yi ngëm yàlla la ñu koy nangoo teg ci taabal di ko discuter waaw maanaam nangu sa iman li nga xam ne sa diine moo la ko daal nga di ko teg ci taabal nag dama koy discuter kooku bu ñu ko nangu ndax suñu teraanga ak suñu kawe ak suñu kaaraange lépp ci loolu la ne borom bi ne ne walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil muminin teraanga bàngo fala tahinu wala taxtanu wa antum al a'lawna in kuntum muminin teraanga wa kaana xaqan alayna nasrul muminin nee na war na ci man ma dimbali ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla kon looleen lu nu yàlla dig mi ngi nu ko dig ci suñu amee iman nee na suñu amee iman mu dimbali suñu amee iman mu taral suñu amee iman mu aar suñu amee iman ñooy farataw jëf wax kon nag suñu iman lu tax ñu koy waxaan ak a discuter kon nag nañu jàppaat ci suñu diine bu baax a baax a baax te xam ne moom mooy diine ji wér te xam ne weddi benn aaya ci alquran loolu day nit def nit ci ab yëf dañ def nit ci ab yëf te am na taxawaay yu ay nit di taxaw di baaxal ay nit yu ne ci beneen diine di wax ne kenn gënu leen kon li muy tekki mooy da ngaa bëgg a wax ne am na feneen fu ñu mën a baaxee ku dul ci lislaam kon inna diina inda allahi islam dàqul wa man yebtag xayra islam diina falan yuqbala minhu dàqul loolu nag ku dàqoo foo amee dara la weddi ci alquran li muy tekki mooy weddi nga nekk nañ defar suñu bu baax jàngat alquran loolu nag tekkiwul ni nga ko waxee ñu ñaawal dëkkiin ak ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkal te xeexuñu ci suñu diine nañu rafetal dëkkiin su digganteeg ñoom te ñu xam ne nag dañoo am mission wooleen ci islam bu wuutu mukk di leen woo ci islam lu mel ne buur yi buur yi jullit ñi ñu ci bari dem leen Vatican ci Pape bi mais kenn ñënewu ko ci ne demul dugal ci islam am na diina dong bu ak di judd moo ci jàkkaarloo moom ne ko duggal ci l'islam moom wax na ko par bi par woo na ko ci l'islam te loolu tamit waru ci am complexe bu fekkee sa kili sa sa daraja fu mu yegg rek ba koo ci mën a jàkkaarloo war nga ko woo ci l'islam def sa ak ndax lañ waxoon ñu leen naan li ma ta'isuuna qawman allahu muhlikuhum aw mu'azibuhum azaban kabir qaalu ma'siratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun dafa am ñu doon waaraate ñu ne waaye yéen yéen a yéen a di perdre temps gars yi nga xam ne dañuy alku ngeen di leen wax am na ñoo xam ne soo demoon naa dafay waar Pape bi ñu naan yow daal da ngay perdre temps xam ne Pape bi bari nga ko waar ba jot waaw waaye nga ne nga ne dama damay wàcc sama jaan li war a naan sama jaan wàcc ma'siratan ila rabbikum te it amaana amaana mën naa jëndee parce que ab nit doomu la nit doomu la te yàlla waxam bi ci xolu doomu aadama la koy adressé doomu aadama yàlla ko bind mën naa am nga wax kàddu dëgg rek yàlla xam ne ko ci biir xol bi yàlla tànn ko ci biir xol bi waman la fi ku ne la ci xol bi mënatu la gëm kon nag wax lu sa ak koo ci dëkkalit lu ngeen xarit lu ngeen waxtaan waxtaan xarit moom moom dox seen diggante waaye jëflante bu rafet mën na paale waaye ne dacca pourati koo woo ko ci l'islam bu am complexe woo ko ci l'islam ne ko ah dugal ci l'islam maa ngi lay woo ci diine ji nga xam ne ci la ñu nekk su ñëwul nag yow def nga li nga war a def waaye kenn ba boobu sax moom moo lay campagne bi la woo kooku nag faiblesse la boo xam ne ah jéggi na la yàlla nu yàlla teg ci siraatul mustaqim taxal nu ci dëgg wan nu dëgg ba mu leer nañ ñi mu dimbalu nu taxal nu ci ban man koo topp wan nu caaxaan ba mu leer nañ ñi itam mu defal nu tawfiq bañ man koo wattandiku wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam